say naa ah, barakallahu fiik keneen ki dafay laaj ba xam doomu njaalo est-ce que dina dugg àjjana man laaj yi dama xamul waa am na ñu koy wax nag ku mel ni sëñ Sambay wax na loolu loolu wax la boo xam ne lu gën a yàqu ci wax boobu amul wax boobu amul preuve amul cëslaay amul dara bu dee doomu njaaloo du dugg aljanna waa doomu naankatu sàngara nag doomu tekkatu dil doomu sàcc doomu bokkaalekat nag fu mu war a dem ok léegi dañ xool yu bon yëpp ñu ne kii doomu njaalo njaaloo lu bon la ok njaaloo ak bokkaale ban moo gën a bon du bokkaale njaaloo ak naan sàngara bu gën a bon naan sàngara njaaloo ak fen bu gën a bon fen dëgg loolu dëgg ok est que dañ naan doomu bokkaalekat du dugg àjjana est-ce que dañ naan doomu fenkat du dugg aljana est-ce que dañ naan doomu jewkat du dugg aljana pourtant yi mo gëna bon njaaloo yi ma tuddu ni ci l'islam ko dafa wax yo xam ay waxu kasso kasso la yo xam tebul fenn doomu njaaloo yalla da koy juger solo mom ay jëfëm bu jëfé lu bax mo gën doomu ko xam ci sharia la musa mi wala Demba mi bu nekké doomu sharia te du julli du wor du def diglé yi Samba mee laqadara nek doomu njaaloo di julli di wo di def digle yi mo mo gën ci yalla te mo koy jitu ci yalla ko yooyu ay wax la yo xamne ne fenn ay waxu kasaw kasaw la doomu njaaloo day jité bu fekke fa mu nek jakk ba mu nek mo fa upp xam-xam day jité mo fa gëna jang day jité doomu njaaloo mën na nek imam bu fekke da jang doomu bu defé lu bax bu déwé day dugg aljanna comme boo leen nee doomu njaaloo du jiite du nekk imaam du dugg aljana comme nee leen doomu sàcc du nekk imaam du jiite comme nee doomu fenkat du nekk imaam du jiite du dugg aljana comme nee leen doomu njabarkat du nekk imaam du jiite du dugg aljana comme nee leen doomu naankatu sàngara du nekk imaam du jiite du dugg aljana comme appliqué leen ko ci mbooleem bakkaar yu mag yi comme lay waxu kasaw kasaw yoo xam ne tegul fen benn waay rek mooy toog di ko wax yu ëpp nag benn waay rek moo ko bind ci téeram noonu bàyyi comme doomu njaaloo yàlla da koy juger selon moom jaamu yàlla bu defee lu baax bu bokk ci ñu baax bu defee lu bon bokk ci ñu bon yeneen question yooyu question de la wax dëgg yàlla. fii xamuñu de waxal rek ñu bëri nag xamuñu de ñu bëri xam parce que lii comme doomu njaaloo bi lii seen sëriñ yi dañ koy wax. benn mbokk doon doon wax. moom man de gis naa fi lu bëri. mën a bindaat laaja mën na ko bindaat. keneen ustaas la mooy doomu soxna doomu soxna du dara lu ku sa yaay nekk jullit rek yow doomu soxna nga ku am yaay rek doomu soxna ko moom ku am yaay rek doomu soxna. li ba xam nee na ba dafa am heure heure précisée quoi. bu ñu kenn fontoo naa ñu doomu soxna faa nga am tur bi wala faa nga xam sant bi ku nangu nag ku nangu yow doo doomu soxna sa problème la boo nangoo ni keneen mooy doomu soxna yow doo doomu soxna kooku sa problème la sa ñàkk fayda la mais képp ku am yaay rek doomu soxna nga